asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum monde ab yëpp maa ngi nuyu ñëpp di nuyu télé bi nga xamante ni mooy Lutte TV com waaw ñu ngi nuyu ñëpp daal waaw. saa noo gisee euh, sa combat bi ak Ness. waaw yàlla jàll ci jàmm. waaw liggéey nañ ci liñ ci doon liggéey ci physique euh, mystiquement lépp. waaw taxaw nañ ko bëri ko ci ni mu waree daal. parce que buy bëri ko àll du da ngay ñëw rek sa sa sa combat. Mhm. temps yi ñoom ñu ngi laaj sa combat ak euh, Boy Niang Boy Niang démb am na lu mu wax ci télé bi donc euh, noo noo ko xalaatee. waaw yaakaar naa ku ciy wax ak Boy Niang daa fekk jëflanteeloon nga mais boo leen jëflantee ba pare maanaam wax ji dina néew quoi. ma ko teree neex maanaam moom bu ñu jëflantee ba pare su ma ko rombee nii la may def kàppoo billaay walaay. maa ñaam man li ma koy wax semence wax bëri bari nee naa ko daal bu ñu tëjoon ci biir néeg di ko ibbi heure bu ñu ibbee fekk ma ci kawam waxee na wax ji bari na yàgg na ñoo bëgg suñu combat ñoom ñoo doon daw sës nañ ñàkk xëy na amuñu tey ku ñu mën a bëre fii nag laa daan xaar te xam ni bis na mu sañoon dinañ bëre. caawe